بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون tey kalima bi ñu ngi koy jox euh, aljamaatul islaami euh, ci turu Serigne Khadim Mbacké bismillah sëriñ xaadim mbàkke tafadal maskura hmm? docteur xaadim ifan afwan docteur xaadim mbàkke yatakallam bismi aljamiyat alislamiya wa alxudur docteur xaadim mbàkke ifan afwan ëpp na sax bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man mbokk yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi teew sàkkantuma nag ñi nga xam ne dañoo ràññiku ci di jàngale alquran al karim nga xam ne mën nañ ne ñooy wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wi ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo tasaare alquran bi fi yonent bi jógee ba tey di sant di ndokkeel ki nga xam ne moo waral jotaay bi muy alxaaji sëriñ Seck wax dëgg mboolem li wax fi moom li wax ci moom ci wàllu taxawaayam ci luy dundal njàngum alxuraan ak lii nga xam ne lu bees la muy dekkalaat walla soññu ñi nga xam ne dañuy yittewoo lu ñuy bind alxuraan loolu lépp lu ma mën a lu ma mën a seere la xanaa rekk ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo wàcc alquran te wax ne inna hadha alqurana yahdi lillati hi aqoom waxit waxit ne wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri mal kitaabu wala al iman walakin jaalnaahu nuuran suñ boroom moomu nga xam ne moo wax ne alquran ruux la te it alquran leer la noo koy ñaan mu may ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci xeet wi di fi tasaare téereem boobu ak ñi leen di jàppale comme Alaaji Sëriñ Seck noo ngi koy ñaan mu yokk seen kàttan may leen ak wér ba li nga xam ne yéene nañ ko ci bindeef yi ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu def ko na mu gën a rafete wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Euh, jërëjëf Serigne Khadim Mbacké docteur Ifan lay sant bu baax ci taxawaay bi ak kàddu yu yu am solo yooyu mu mel ni mbokk yi pour gën a njëkkante waxtu wi rek comme niñ ko waxe al kalima li day fi sharaf Serigne Mbaye Sy Abdou ma بنعمة ربك بمجنون